jërë ngeen jëf mbokk yi seen émission Jome dellu seet na comme ni ngeen koy amee altine bu jot incha allah ñu ci ànd ak yéen ànd ceeg euh, imam Babacar Sylla waxtaane lépp loo xam ne rek dafa jëm ci wàllum euh, doxinu réew mi yenn saay sax ñu indi ci li nga xam ne sax mooy benn point ci wàllu diine parce que nag ñi ñuy topp lu mu bari bari am na ci ñoo xam ne seen diine daf leen yitteel tey nag dañ ci jël benn tom euh, point boo xam ni point bu sensible la muy wàllum sàcc ay ndeke yu am na ay conséquences yu doy waar doy waar yu ci am euh, bi ci des it dinañ ñëw ci actualité yi ci wàllu réew mi discours yi ci kër xalifa généraux yi ci weekend bi ñu génn mouvement daara yi créé wu dem toppi ji Ousmane Sonko ñoom imam Babacar Sy la ñu daw nañ dem ci Ousmane Sonko lu xew loolu lépp insha allahu rabbi dinañ ci ñëw bu dogal borom bi magistrature bu bu bu Sénégal xam ngeen yëngatu na ak ay coppite yu baree baree bare yu am dinañ ci ñëw insha allah bu ànd ak dogalu borom bi loolu daal mbokk yi lañ bëgg a waxtaane Idrissa Seck du jómbal dinañ ci euh, comp aslëf ndax defe naa moom it ma ngay bëgg a génn ca état bu senegal euh, dem créé yi fi boppam imam Babacar Sy la maa ngi lay nuyu jërëjëf euh, sëriñ Chouaïbou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu waa solution TV yëpp. Mhm. di am mbégte lool pour teewaat ci jataay bi tabaarakallahu nuyu ñoom saa Ndiogou assan Mesere ak techniciens yi ànd ak yenn ak caméraman yi. Mhm. ak mbokk yi nii topp ci internet bi tabaarakallah ñu ngi am mbégte di kontaan. macha allah waaye nag di wax ne dew ma de. <laughs> <laughs> demaguma de. ah imaam daal daara la wax te daara dafa yaatu. waaw ah, daara daa yaatu nag. ah am na pàcc bu dem daal. am na bu dem am na pàcc bu dem waaw. ah waaw baax na kon li tax demoo loolu lépp dinañ ko. Ah, incha allah ko lijjanti. Hmm. incha allah jërëjëf kon imaam dañuy njëkkee. Hmm. bala ñoo ñëw ci waxtaan woowu lépp fan ngeen mujjoon ci li nga fi mujj bi nga ñëw li nga ñu waxoon ni. Hmm. am na ay points yu ngeen waxtaanee woon ak waa kujje gi ak bi Eh, ndax am na ñu leen ci dalal boobaak léegi. waaw xam nga champ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndax lii suivi lay doon. Mhm. keroog bi ñu fiy jógee waxoon nañ ne ànd sàmm jikko yi. Oh. Eh, groupe parlementaire bu yeewi dalal na ko. Oh. ba joxe waat accord ci luwaa bi fu ci toll dana ci def lu mu mën. mooy loi wu borom ñaari tur yi. borom ñaari tur yi. Oh, eh, bokk gis-gis. <coughs> ki leen fa teewal Moussa Diakhaté. moom tamit dalaloon na leen joxewaat waat accord ne. loi bi pare na pour taxaw ñu dugal ko. wallu moo desoon ci semaine boobu dalal na. joxe na engagement boobu. te xam nga ko am groupe bu wallu am groupe bu yeewi. boo ci yokkaatee groupe bu bokk gis-gis. jàpp naa ne majorité bi déjà dem na ba pare. d'accord te junjoon naa keroog sax di tooñ. soxna mii mi ne en tout cas gëm naa ne dina ñëw ci rang bi yaakaar ngeen foofu yàlla def ndeke dañ ko génne assemblée xaw ma waaw génne nañ ko pourtant maa ko fàtte woon wax na ko mais génne nañ ko ndeysaan ndeysaan uh-huh. bon na def appel rek xëy na balaa appel bee jeex hmm. bu dee appel mën na am su dee balaa hmm. appel bee jeex bu ko fa yaakaaruma ko nag de ah, ndax ña ko ah. génne géew bi ñoo yore réew mi waaw loolu it la boo defee appel ñu fekkaat la fa waat buum bi ca mboy mboy ko <laughs> dëgg la de yàlla baax na ah. en tout cas xëy na ñi ngi xaaraat ku mel ni Pape Djibril Fall mm-hmm. euh, ku mel ni na Alassane Sall mm-hmm. euh, waa Benno Bokk Yaakaar am nañ ci mm-hmm. yaakaar ah parce que Babacar nee na nee nañ ko dinañ la dalal alhamdulilah pour joxe waat seen accord ci loi bi alhamdulilah ah, yéen yaakaaroon ni yéen du ngeen waxtaan ak waa Benno wala montant yi ñu def yëpp dañ leen a seeti jox leen ko macha allah ba ca signature yaag lépp lu nu yóbbul opposition bi bennoo lañ koy njëkk a jox door ko jox opposition bi. alhamdulilah ah, peut-être que ñooy am seen position bopp jàpp ne arrangé wu leen. Mhm. mais moom ñeme woo dugal dara te jaarale woo ko ci ñoom. alhamdulilah te bi ñuy rappelé waat gars yi pour wax leen ne leen loi bi bëgg nañ mu dugg. Mhm. dañ leen koy yónnee waat te nee nañ incha allah dinañu dalal. nee dalal yàlla na nga xam. kon daal wallu dalal nañ leen. waaw ñee joxe nañ dañ koy voté alhamdulilah waaw ko d' accord kon jombur ku mel ni Pape Djibril ak ñoom Thierno Alassane Sall mhm. ak euh, waa ah, bokk euh, benn bokk yaakaar mhm. xëy na peut être jàpp naa ne ñoom bugguñu borom ñaari turi di daagu fii ci biir réew mi wala ñu fi am dogal normal ndax Pape Djibril doomu daara la li muy wane bokk c'est dëgg dëgg waaw dafay wane ni moom daara ah, saf na ko te diine saf na ko waaw na ci gaaw de wax dëgg yàlla mhm. na ci gaaw bi dafa war a gaaw dugg changé bu nag d' accord loi bi dafa war a gaaw ci ñu war dugg la bokk waaw jaar bi warul taxaw alu fen d' accord waaw ah, loolu laa gëm. Mhm. xam naa dinañ fi ñëwaat kon ci ay jataay mhm. euh, waxtaane ci lu yaatoo yaatu mhm. léegi imam ba lañoo ñëw nag ci yéen ñi demoon ci Ousmane Sonko maa ngi dégg it ñu ni eh, yéen waaye delloo si daara yi rek <laughs> yaa fi teewal daara imaam <laughs> waaw ba tey d'accord xam nga tey yaay daara lu ne man yéen laa koy xëpp waaw acce bismillah ndax président Sall yéen da ngeen ko yàgg xeex émi yi loolu moom ko toppee mboor di ko jaboliser bañ gañe ko yéen wax na moo ñu doon xeex rek ba askan wi mere ko <laughs> mais gars yi defuñ ko dara moo ah. jàpp ci seen daara yi di tëj eh. jàpp ci imaam yi que askan wi am baax na loolu rek kon loolu di leen ci ñëw incha allah ñëwit ci bu Sénégal bi ni mu yëngatoo mhm. ak it euh, ñëw ci ay point yu baree bari ci kër mhm. kilifa diine discours daal gis nañ ni dafa nuróote euh, lépp ci wàllu jàmm la jëm dëgg léegi nag ñu jóge ñëw ci point bu njëkk muy sàcc ay imaam waaw sàcc ay nag bu ñu ko waxee mooy moo du Diouf mi am soxna mhm. ñaari soxna wala sax Baye Assane moom laa gën a yab ah, euh, ku ne am ñaari fanam wala ñetti fanam wala lu ñu waxtaanee ba tënk ko waaye Assane bu ko neexee yenn saa yi mu daal di jaar ca ñaareel ba wala ca aaw ba moomewul ay mhm. sol fa mbubb naan fa kafe naan fa boisson wala sax nelaw fa tuuti mhm. imam lan mooy sàcc ay ñu doog a ñëw ci atteeg yooyu waaw ñooñu la yeneen sallallahu alayhi wasallam di wax ne yow mal xiyaam bu ñuy dekki dañuy pant dañuy jéng seen genn waa gi day paralysé waaw mooy ñi nga xam ne dañoo yor ñaari soxna mm. di toxal ak ay fii di yóbbu fale moo xam dañ koo sàcc wala dañ koo forcé parce que am na ñoo xam ne tamit waaw am ñoo xam ne forcé waaw am ñoo xam ne ñoom seen soxna yi leer na leen ne kii day jàdd ci kee même bu ayewul. mais lew na ko imam moo lew na ko de. ah waaw mais daa am période yu mu lay lew. jabar du période yëpp la lay lew nga ànd ak moom de. am na hmm. période boo xam ne boo fa àndeek moom def nga lu xaraam. Hmm. waaw te mooy nga fekk ayug jàmbur. Hmm. nga toxalee ko ca dem yóbbul ko kële. loolu du loo moom àqu jàmbur la. ay nag mooy li nga xam ne. guddi la ak bëccëg. Mhm. noonu la ko sharia di tënkee. Mhm. bépp jigéen bu ayee am na guddi ak bëccëg. Mhm. léegi nag waaw yow bu fekkee dix heures nga fay dem. dix heures ba suba moo ko moom. su dee midi nga fay dem midi ba suba moo ko moom. mais yow boo ayee ci kii teel a ñëw huit heures. nekk fa ba bët set. toogaat fa ba dix heures doog a génn. soo ayee fële xaar ba quinze heures nga doog a dem. wala sax dix sept heures. balaa fajar nga wàññeeku ñibbi. lenn mën naa nekk. Hmm. su ngeen ko waxtaanee ba d'accord ci. ou bien yow say jot ak say yitte fa ngay dem di ko fa fekki moo sori. Hmm. ba jumtukaay yooyu moo dajewul mais bu dee ñoom ñaar a benn barab. Hmm. bokk fu ñu ne ci fu ci ne mën fa dem def fa mais sa jëng moo tax ngay wàññi kii di jox kële. loolu la shariat di loolu nag bu ñuy wax jëng ci sëy loolu loolu mooy jëng ñaari jabar mën nga leen am Shuayb. nga may kii te mayoo kële te du tudd jëng. ah waaw ah, dafa dépendre. ah loolu yemale la oustaz ah waaw nga may kii te mayoo kii. waaw dafa dépendre lu tax nga may leen. waaw tey mën nga ñëw ci kii nga aye fa. Hmm. yëkkati sa benn deux mille francs jox ko. Hmm. pour dépense. Hmm. nga gis ko mu dem dugg ginaaram. jënd boisson jëndi lu nekk teral la teral say gan. boo amee xel war nga xam ne sa deux mille francs yii. tollu lu wu fi ginaar yi moom mooy jël alalam di ci def. yow nag boo amee xel. da ngay fexe yow it. léeg-léeg nga yëkkati dara defal ko ndax coono ba muy daj ci yow ak la muy financé waru ko. Uh-huh. da koo def rek nga roq ni ko nga gis koo xam ne deux mille francs yi nga koy jox mën na am sax boo ko ko joxee 1000 francs yi sax du ko ci def. Uh-huh. ou bien bu ca yemee mu yem ca kepp d'accord loolu nag loolooy tax léegi-léeg nga mën a may kii dara te doo may kii ou kii moo ëpp njaboot kii. Uh-huh. kii boo jëndee paquetu saabu yóbbu fa. ba weer bi dee paquetu saabu bi mën na ko doy. kii benn paquetu saabu bi balaa de fukki fan ak juróom mu jeex. ndax daa yorum njaboot. nga jëndal kii ñaari paquetu saabu jox ko jëndal kii benn paquetu saabu. ndax kii moom kenn képp a nekk ak benn doomam kii ma ngaa fukki doom. loolu yamale la. waa loolu yamale la. waaw loolu mooy ku nekk ni nga toll moom lañ la defalee loolu mooy ak maandu. léegi ku mel ni Baye Assane bu amee ñaari soxna. Mm-hmm. léegi aaya na ca aaw ba. waaye ñaareel baa ngay liggéey ca entreprise sàngam. Mm-hmm. mu wàcc ñaareel bi woo ko ni ko doo ma déposé mu jaar ci entreprise ba jël ko dem déposé ko këram. amul duraat amul droit dem toog naan fa kafe dem yi. déet bu mu jàdd de. ah bu mu jàdd de. amul droit dem jëli ko yóbbu. oto bi daal bu ko yóbboo. ba mu taxaw ci bunt bi ne tijji bunt bi bàyyi ko mu dugg. bu ne ko ah, kaay Ousmane euh, Oustaz soxnaam la. soxnaam la mais heure bi muy ànd ak moom ko. ndaw sa li ca kër ga. Hmm. moom moom moom heure bi ngay ànd ak moom ci ay. soo bu jigéen bu ko neexee jaay ayam jaay xaalis jaay. jaay jëkkëram ayam. mooy soxna si dafa aye waxuma jëkkër ji ne ci lu ko neex de soxna si am ngant mhm. xam nga boo amee ngant munoo ànd ak sa borom kër te borom kër gi bëgg naa ànd ak moom mu ne ko damaa ne ci ngant mhm. su boobaa borom kër gi da koy ñaan ne ko ndax mën nga ma may kon ma fanaani fële ñaan lay doon ñaan da ngoy ñaan de ne ko ndax mën naa dem fanaani fële su ko neexee mu ne ko bismillah mën nga dem fanaani su ko neexee mun ne ko déedéet doo fanaani te su ko waxul du dem bu ko waxul du dem mais su boobaa góor gi na ko wax ne ko. Hmm. ñaata nga bëgg ma fay la ko pour dem fanaani mu ne ko soo ma joxee junni mën ngaa dem su ko joxee junni léegi ay gi bu ko neexee yóbbul ko kële ndax jaay na ko ayam. Ah. mais ay gi moom ndaw si moo ko moom bu ko neexee maye ko bu ko neexee jaay ko mais góor gi sañu ko tappale sañu ko forcer. ah kon doo nekk naan man maay sa kilifa. lu ma neex laay def voilà fu ma neex laay jaar suma liggéey foofu sama kër la dépense ba fa nekk maa koy joxe même boo koy joxe. Hmm. jour bi nga fa ayee képp nga fa am sañ-sañ. boo fa ayewul amoo fa sañ-sañ waroo fa dem lu dul dara xew fa. nga war faa dem nga lijjanti loolu te delluwaat mais dem fa pour sa bànneexu bakkan ñëw jaaxaan ñu taalal la ataaya hmm. wala di la jox ay boisson ak di la defaral reer naan la reeral balaa ngay dem hmm. c'est-à-dire ngi lay bëgg a woon ne boo demee fële duñ la toppatoo na xaar ba ayam ñëw mu toppatoo la sàcc ay moom lu xaraam la hmm. ndeysaan alaaju fal ah, dafa xaraam ah dafa xaraam de dafa xaraam de ñu koy def nee naa la yowmal xiyam bu ñuy dekk la ñuy ñëwee siise moo daan wax ne doom ya ciy juddoo ñooñu la ñuy doomi xaraam waaw pourtant nag dama bëggoon. Mhm. Euh, ma pose ko foofu ba bii di ñëw ñi ñëw ci attey mhm. boo sàccee ay am fa doom. d' accord. ñu def noonu wala waaw d' accord incha allah. ah si incha allah nañ bàyyi di ñëw kon kon bii di ñëw yéen bokkee xarit yi comme imaam wax na leen. Mhm. façon wu sàcc ay ri ak ni mu xaraamee. bii di ñëw nag dinaa ko laaj ci léegi ki sàcc ay. ñëw dem fa naan fa kafe naan fa kii daal di fay seq ak soxna sa doom juddu. doom jooju lan mooy àtteem ci sariya incha allah euh, dinañ ci ñëw altine bii di ñëw bu ànd euh, dogalu borom bi xam naa fi ak bii di ñëw dinañ leen xoole yéen possibilité ngeen mën a am itamit bu ngeen amee yéen laaj laaj avant ñu dugg ci thème d'actualité yi imam mhm. euh, discours u xalifa yi waaw appel bi ak Touba la ko jiitu ci waa woon fu ci nekk daal mhm. gis nañ fa ay discours yoo xam ni maanaam ñu ngi woote jàmm ba ci mhm. fii ci lew na ña seen Medina Baye maanaam discours jàmm gi daal bari na léegi Ousmane lan nga jàpp ni euh, moo waral Ousmane Sonko. fu mu jaar ñu ni ko jàmm jàmm ndax. nitu xay la ndax dañ ko jàppee nitu xay. wala lu xew. waaw jàpp naa ne. riir mi mu àndal. Euh, moo tax ñuy wax xam nga change bu. politiciens yëpp. ñooy def discours bi violent. politiciens yëpp ñoom ñëpp. amul ñu ci pouvoir amul ñu ci opposition ñëpp ay def discours bi. violent yaakaar opposition bi rek koy def. ñëpp koy def. depuis l' indépendance laa wax de. Mhm. amul politicien bu mas a nekk ci géew bi lu dul léeg-léeg mu toll jamono yoo xam ne. Mhm. day wax kàddu yu rëy mais kàddu yooyu xamul nga lu tax du garaaw. Mhm. mënu ko. dangay ngay gis ko naan fii duñ ko nangu Macky Sall bu ko a def ñu delloose ko ca pale ba. waaw mënu ko mënu ko moo tax du ko moo tax du am benn influence. Sonko nag li muy wax da koo mën. waaw moom bu xëyoon na xale yi génn leen. catastrophe bu rëy mën naa am. doo seetlu léeg-léeg. politicien wax lu mel ni li mu wax. mais bu ñu xëyee du am coow dëgg la. man jàpp naa ne Abdourahmane Diouf ni mu waxee Medina Baye. Hmm. bu ko Sonko waxee woon loolu débat national lay doon. day na mais dañuy jàpp ne. Euh. du am influence. Hmm. la muy wax. Hmm. du am jeexantal ci ñi koy déglu. d'accord loolu nag. wax yàlla moo koy def waaw. waaw te ko waxam dafa def jeexantal ci ñi koy déglu. heure bu génnee gis nga riir mi koy topp politiciens yëpp nga def nemmeeku tuur. Mhm. mais moom bu demee ziyaara ji sax mu daanaka def fa embouteillage. léegi nag loolooy tax ñu ragal ni kii li muy wax mën naa nekk. Mhm. mais politiciens yàgg naa def discours bu ñu la beneen bi ci des. mooy jàmm mooy lan. lan mooy jàmm cest mhm. mooy sécurité. ndax ñu ngi ci sécurité. jàmm bu ñu ko doon traduire dëgg. mooy ak dal ak sécurité loolu mooy jàmm. léegi nag mu des lan mooy sécurité ak lan mooy dal. waaw bu yow tamit wax dëgg yàlla ñu ngi nekk ci nguur goo xam ne. bés bu yàlla sàkk am na ñoo xam ne heure bu ñu xëyee dañuy xalaat man ban heure lay dugg kaso mais loolu normal. dëgg la nit koo xam ne yow defoo dara yaa ngi toog di liggéey mais bés bu yàlla sàkk yaa ngi pare sa valise ne dinaa dem kaso lu tax damay dem kaso parce que d'accord ma ak fi nekk. Mhm. loolu du jàmm. te ñàkk d'accord gi da ñàkk ko d'accord ci violent da ngay wax rek sa sa xalaat. wax rek ne d'accord mhm. d'accord ma yow sa sa buntu kaso mi ngi taxaw bare na ñoo xam ne tey ñi ngi ci kaso bi bokk ci parti Pastef kenn mun laa wax ñu def. Mhm. mais jàpp nañ leen ñu ngi ci kasu bi di xaar bésu àtte te xamagoo lu ñu def ah. di ramasse benn par benn man jàpp naa ne nag réew mu normal mhm. te ñu bëgg jàmm warul doxee noonu kon jàmm ji foofu la war a dooree ah jàmm ñaar la wax ak jëf mhm. dégg naa sax euh, sëriñ Fallou daana ci boole ak yéene nee na jàmm dañ koy yéene wax ko jëf ko ah. mu doog a daje mais jàmm kenn du ko ñaan yàlla mais dañ koy melowoo léegi nag jàpp naa ne discours jàmm bi baax na waaw mais nañ fexe di ko séddale ci ñaari côté yépp mm-hmm. mooy opposition bi nañuy wax jàmm mm-hmm. mais nguur gi nay def jàmm waaw ah. ah, parce que nag yow mi yor doole ji ku la neex jàpp ah. ku la neex tëj mm-hmm. ku la neex faat te du mujj fen mais loolu bu yàggee da nga dajee koo xam ne bu melee ni yow fu ngeen jaar ci mbedd mi ngeen di mujj mais jàpp naa ne bu ñu fexee ba ñuy jooy noppi te waxuñu kiy dóor na bàyyi dóor yi jàmm daam de ndax am na ñoo xam ni ku leen dóor ñu yuuxu dëgg la waaw te ñi ëpp ci opposition bi yuuxu dong lañ man ah. mais nag ñi nga xam ne ñoo yore seen yar. Ah. yore grenade yi yore fital yi yore kaso yi di tëjaate. Ah. man jàpp naa ne bu ñu wàññee tëjaate bi. wàññi ni ñuy acharné woo ci kaw ñenn ñi. waaw wàññi injustice bi ñuy teg ci kaw nit ñi. lu bëri ci jàmm dinañ ko am changement. fi mu ne nii réew maa ngi tekk ñu ngi ci jàmm. dëgg la bu ñu yëkkatee yenn projet yi rek léegi ñàkk jàmm amaat. te loolu injustice lay doon. waaw kon man jàpp naa ne jàmm ji bu doon téeméeri poñ. quatre vingt quinze yëpp. nguur gee ko yore. d'accord bu nekkoon Macky Sall suba réew mi nekk ci fitna. Mhm. su ko neexee suba réew mi yëpp dal. d'accord moo tax man jàpp naa ne ñiy invité ci jàmm. Mhm. moom moo ci war a jiitu. mais ñu bari dañu ni amuñu information yu bari imam am que ni. Euh, jàmm ji ci ñaari wàll yëpp la ñu bari dañ ne dañoo sëgg seen nopp yéen kilifa yi mhm. ni leen kat waa ji ngeen di gis mu tudd Ousmane Sonko nitu xay la mhm. ay ñoñam ñooy saaga ci réseaux sociaux yi ay nangam ñooy nangam te barki dem dégg naa mu ni maa ngi waxaat kuy saaga bokkoo ci man ah, waaw ndax jàppoo ni kon yenn ci kilifa yi ñu baal ma ci ni ma ko waxee bu dee mhm. dafa kii est que am nañ info yi nga information waaw xam nga kilifa yi moom du information yi ni am yëpp la ñuy am ñoo loolu moom foog ñu nangoo ko parce que ñoom amuñu jotu dugg YouTube amuñu dugg Facebook ak Telegram ak ne ci internet bi di tàppee di xool googu jot amuñu ko. dinañ leen indil ay xibaar. mu ngi dépendre ci ki leen di indil xibaar yan xibaar lañ leen andil te xam nga changé bu jamonoy dagg vidéo dafa xew. dëgg la nit mën naa dagg ay waxi jàmbur ñëw dëgtal ko kilifa gi ne ko xoolal kii li mu waxati. kilifa gi ñëw man mi daggal nañ ma ay vidéo ki dem gis nga waaw léegi nag man jàpp naa ne ñi informer kilifa yi. Hmm. souvent danañ fa yóbbu information yu faux. parce que hmm. man ni ma gisee Abdourahmane ni mu doon waxee ak yi. dafa mel ni ku ñëw di ko indil information yu bees. waaw te ni kilifa gi réagiré. Mhm. dafa mel ni dafa dégg lu bees mel ni ku jaaxle ci li mu wax. dégg naa di ko xool xoolu kii li mu koy wax bokkul ak moom li mu jàppoon ne noonu la demee. Mhm. réaction bi boo ko xoolee donte sax ni mu ko poussé man d'accord ma ci parce que kilifa tamit. waaw fii waaw kenn du ko poussé. ak di ko waxloo li nga bëgg mu wax ko mhm. sa sa copain la waxal ak moom dina nangu yooyu mënoon na ñàkk amul solo mais da nga yëg ne. yóbbul na ko information nag. Mhm. yóbbul na ko information ci xamal ko ne ko ñii di tajaate ci lu dul dara ñii di jaay doole ci lu dul dara ñii di rayaate ci lu dara ñii di nappaate ci lu dul dara foog ñu bàyyi nappaate boobu. loolu moom discours bu dëggu la. Mhm. man jàpp naa ne ñoom bu ñu bàyyi woon loolu léegi jàmm am. mais daal li wér mooy kilifa yi am na ñu fa yóbbu xibaar yoo xam ne. Mhm. ay xibaar yu foo la. loolu moom loo am la parce que ñun ñuy dund ci dëkk bi xam ni muy léeg-léeg nga dégg réaction boo xam ne da lay wér ne am na lu des. lu luñ fa yóbbuwul donte nag ñun niñ bëgg kilifa yi di réagir du demee noon de. Uh-huh. parce que bëgg kilifa gi génn rek dal ci kaw Macky Sall. Uh-huh. Macky Sall la tegal mbir mi ci yoon. ah kilifa du defee noonu ah non non ñoom duñ defee ñoom buñ noonu bu réew mi takkee dañ ci am dañ ci am part de responsabilité bu mag a mag a mag. Uh-huh. parce que bi fii mu toll. ku waxal yàlla di nga xam ne majorité sénégalais yi kontaan nañu. dëgg yàlla te loolu élection yi jàll yépp dañ ko wane majorité bi bu ñu kontaanewul am na tuuti lu ñu koy rusee mooy kilifa diine yi dañuy jàpp ne mhm. ñu ngi koy xaw a jàppale bis bu kilifa yi affiché woo ne ñoom seen yoon newul ci moom mhm. suñu ah, ñëpp ci mbedd mi leen jëm ah, kon kilifa diine yi ndëgër laayu président Macky Sall la ñoom dañuy jàpp ne bu ñu amee benn weddi wala benn mbañeel bu ñu fësal ci moom rek mhm. ba moytuwul askan wi daal di ko exploité réew mi tàkk fa benn yoon déjà déggoo kaw Ousmane Sonko tey waaw discours yu tàng bu ko defee mm-hmm. dan naan ko ku fi dee yaay responsable bi waaw waaw léegi loolu bu doon benn xalifa moo ko def nag su ëllëgee ñu ne xalifa bi mooy responsable parce que moo ne woon nit ñi génn leen ngeen xeex dëgg la cest diir ñoom tamit loolu dinañ ci bàyyi xel ba dañuy jéem a apaiser mm-hmm. lu ñu mën mm-hmm. man su ma sañoon nit ñi danañ leen xaw a jéggal tuuti ab diir ñu xaw leen a nëbb sax yenn micro yi. d'accord ah, parce que jamono bii ñu toll. booy wax ak kilifa synthèse rek la war a wax instant bi mais direct live toog ak sa kilifa di live fii réew mi toll. Hmm. ku mën nañ nga ko moytul sa kilifa. d'accord parce que réew mi dafa sensible fi ñu toll. dee ko bàyyi bu waxee ba pare. Hmm. ñu synthèsal ko mu wax li mu wax ñu génn ko yóbbu. d'accord mhm. kon ci point boobu fi ñu ciy mujjee mooy Ousmane mhm. Sonko nee nañu. Mhm. Euh, pexeem daal mooy su gañee jëlee fi kilifa diine yi defe naa am na loo ci borosé woon. <laughs> Euh, ci ndaje mi mu amoon ak euh, daara yet junj na ko. dafa mel daal gars yi nee nañu moom projet mooy jëlee fi kilifa diine yi jëlee fi daal mbirum jaamu yenn kii yeeg yooyu yow ndax noonu nga ko gisee. ah man loolu dama ko boole ci. xeexu politique rek maanaam ñoom politiciens yi seen biir kenn ku ci nekk yaa ngi fexe loo mën a téye sa moroom di ko ko xeexee léegi nag ñun askan wi ñun ñoo war a xam ñi nekk pouvoir ak ci opposition bi baat yi nuy jël di ci manipule nit ñi pour gagner ko te du nekk baatu dara baatu combat la ki koy wax sax souvent di ko gëm ak li ngay xam ne dëgg la ci ñoom li nga xam ne dëgg la mais man sooy bu maa ngi jàpp ne yàpp ñu mooy wane ne Ousmane Sonko mën na ñëw fii jëlee fi tarixa mbaa sëriñ kon sëriñ si fi ñu toog dëkkarul chefu wahabit yi ka ca gën a mag Mouhamad Ibnul Abdul Wahab boo ko dekkalaatoon nga indi ko jox ko Sénégal mu jiite ko par la force laa wax de dana dem màggal dana dem gàmm <laughs> réew mii ni mu bindoo nii dégg naa la <laughs> buñ jëloon wahabit bi gën a sadik ci àddina ñu dénk ko réew mi par la force mhm. dana jëflanteeg ñoom dana gàmmu ji dana màggali bu ko neexee bu ko naqaree réew mi moo bindoo noonu loolu kenn mënu ko fi dindi. discours politique la pour man booy boo ñu yemale ko ca terrain politique ba. d'accord euh, ñu xam ne ñiy xeex ñoo koy xeexee seen biir mais soxlawul ñu yóbbul ko kilifa yi. Mhm. bu mu orienté ñi nga xam ne ay euh, religieux lañ. Mhm. ñu war a def seen i thèmes yu am solo. yu mën a jëriñ askan wi ñu ne ko fa kupp. Mhm. jël débat wu ay politiciens di ko def ay thèmes gàmm. ak ay thèmes mu màggal. ak ay thèmes mu appel. ak ay thèmes ziar loolu mën nañ ko bàyyi ca terrain politique bi ñun ñu xoolaat thème yoo xam ne mën na jëriñ taalibe yi ñoom ñu combat seen combat politique mais tarixa moom fii ci réew mi hmm. ku gëm ne am na ku ko fi mën a jëlee hmm. yow xamoo tarix d'accord waaw jërëjëf imam Babacar hmm. Sy la ci tomb bu am solo boobu ak liñ ci waxtaanee lépp ñu dem kon directement ci magistrature bu Sénégal yëngatu na Euh, boo seetloo ki nga xam ne moom mooy euh, Amadou Diouf bi nga xam ne moo nekkoon procureur euh, bu bi nga xam ne mooy cour d' appel. Mhm. léegi jëlee nañ ko fa ki nga xam ne itamit moo nekkoon cour suprême jëlee nañ ko fa léegi Abdou Karim mhm. Diop. Mhm. léegi mooy procureur de la république. changement yooyu nga gis ndax da nga cee am jàngat bu wuuteeg bi sénégalais am wala da nga jàpp ni waa ji dafa am stratégie bu muy teg. waaw en tout cas olof moo ne tombé mooy waral ay gaaf. te dëgg-dëgg dalul xel. Mhm. fi ñu leen changé mooy fan. mooy dañu jëm ci ay procès yoo xam ne nguur gi moo am adversaire am bu war a dem justice. Mhm. ci biir adversaire yooyu ñu jàpp ne adversaire bi leen gën a sonnal moom moo war a dem ci justice. Mhm. su dee jamono boobu la ñu xool ñoo xam ne dañoo jàpp ne mën naa am ñooñu. lu leen nguur gi defloo mën nañ ko def. nga yóbbu leen fa ñi nga xam ne yaakaar nga ne. li nga bëgg duñ ko def nga toxal leen loolu mën naa tax nit yaakaar ne manipule justice bi ngeen bëgg mhm. benn misaal laa ciy joxe euh, Ousmane Diagne bi nu jëlee procureur général waaw Ousmane Diagne dafa ubbi benn dossier mhm. boo xam ne ci dossier viole bi la bokk bu aji ak Ousmane bu aji ak Ousmane mhm. pour woolu maître Gabi ak ñin ci àndal ñu tudd leen te loolu c'est la première fois ci dossier bi mu am mooy ñoom ñu war leen woo déglu leen ba xam affaire u complot bi ñuy wax ban position lañ ci am. waaw mu ubbi dossier boobu rek ñu dàq. ubbi dossier bi woo leen ñu xëy toxalee ko foofu génne ko ndakaaru sa à dire mooy moom dossier boobu mu ubbi sax léegi amatul kàttanu yeggale ko ndax kiy ñëwaat léegi dina ko yeggale y'a problème kon toxal googu ñu toxal euh, procureur boo xam ne dafa ubbi benn dossier ba noppi te dossier bi mu ubbi arrangé wul nguur gi. Ah, mais opposition bi la arrangé. Mhm. kooku nga toxal ko. ah kon ko waroon a bàyyi mu yeggale. ah mais normalement moo doon yoon. yow da nga ci am ñoo ñaaw njortu ni que. waaw loolu mooy dossier bi waroo ko laal. surtout bu ñu yeggee ay information yoo xam ne après dañ ne ko dossier bi na nga ko tëj mun leen non moom loolu liggéeyam kenn du ko wax nu mu koy defee xam ne ni mu koy defee. Mhm. képp ku plainte fii day topp plainte bi cest à loolu day mhm. neexee mën na la toxal. loolu bu toxoo yaa problème beneen bi ci des procureur bi nga xam ne moom moo moom moo def euh, réquisition yóbbu Ousmane Sonko chambre criminelle criminelle waaw kooku la ñu waat cour d'appel waaw mooy tey boo demoon chambre criminelle tey ñu condamné la cour d'appel nga jëm boo defee appel ci moom ngay demaan waaw waaw loo fa wuti maanaam ki la condamné fii moom moo ne la yow criminel nga nañ la yóbbu fee ñu àtte la ah. kooku lañ la war a joxaat mu àtte la yow léegi moom ngay fekkaat cour d'appel moom ngay fekkaat cour d'appel y problème cest dire mm-hmm. moo tax yu mel noonu mën na tax euh, nit ñi di sikki sàkk man jàpp naa ne mm-hmm. mënoon nañ bàyyi bu dossier yi jeex ñu door a changé waat même su fekkee changé gi wàccul lu wax maanaam mm-hmm. yegg nañ ci période boo xam ne dañu war di yeesalaat bànqaas yi même bu ñu fa yeggee ñaata yoon lañ fi gis président war fi nommé ay euh, magistrat def na cour suprême la woon. waaw toog na fi lu ëpp six mois ko. dëgg nañ fi premier ministre ñu supprimer ko. Mhm. Euh, ñu andiwaat loi bi toogaan na fi ay lu ëpp six mois te ko. Mhm. cest à am na ci yoo xam ne yow da ngay xool période bi nga toll. est-ce que laaj na ko ak boo ko defee ndax dina tey xel. Mhm. waaw ku ne xam ne ne justice bi noonu muy doxee. dalul xel. d'accord beneen bi ci des ñoom àttekat yi ñoo war a jël seeni responsabilité ci ci naka. parce que su demee ba sénégalais yi koo wax ñu ne la àttekat yi lu neex nguur la ñuy def. mais loolu dafa daw yaram te ñoom ñoo jàngi woon ñoom bi ñuy jàng président nekku fii ñoom bu ëllëg ëllëgee seen bàmmeel duñ fa wete kenn seen mhm. bopp ak seen i jëf mhm. mais bu ñu nangoo ñu leen di manipuler comme ça man mënatuma d'accord ko ñuy wax ne justice bi dañ ko war a jox indépendance am vraiment justice bi ku leen jox seen indépendance àddina tukki vraiment parce que yow bu dee ba nga amul indépendance ki la téye di la defloo di la dindiloo mhm. bis bu la joxee indépendance mais keneen a lay defloo mooy léegi borom alal ñooy ñëw di defloo justice bi ak di leen dindiloo d'accord ñoom ñoo war a gëm yàlla uh-huh. gëm na yonent salaa salaam dafa wax ne alqudaatu thalatha uh-huh. waaxidun fi l janna wa thnaani fi naar ah waaw yonent nee ñetti xeeti àttekat kese ñoo am uh-huh. mu ñetti xeet yi ñaari yëpp safara lañ jëm benn bi ah, benn bee jëm aljanna aljanna ñaari safara ñu ne ko benn bi mooy ban mu ne rajulun arafa alxaq fa qadaa bi foofu fi l mu ne juge bi nga xam ne gis na dëgg gi mu tekki tànkam àtt dëgg gi mu ne kooku moom ma nga aljanna est que ñu ne ko ñaareel bi mooy kan mu ne beneen xeetu àttekat bi mooy àttekat boo xam ne mën na gis dëgg gi mi ngi nii. waaye nag arrangé wu ko. xëy na waa ji xaritam la xëy na àndandooram la xëy na waa ji da koo ger xëy na dafa ragal waa ji waaye daal waa ji am na influence ci moom. ba mu njuuy dëgg gi jox ko leneen. kooku su boobaa sunu borom nee na kooku safara la jëm. d'accord ak beneen juge boo xam ne xamul dëgg gi nag. wax dëgg dossier bi maîtriser wu ko xool na xool xamul fu mu koy jaar. Mhm. mu tëb rek àtte. kooku safara la jëm. mu def ci lu ko neex ñu ne kooku safara la jëm ñu ne yaa rasulallah kii luy bàkkaaram parce que xamul. Mhm. mu ne boobu la waroon a bàyyi dossier bi. bañ ko indee dossier boo xam ne maîtriser wu ko la waroon a yëkkatiwaat dossier bi delloo leen ko man gëm naa ne. am na juge yoo xam ne am na dossier politique yi ñu yóbbu ci justice bi. Mhm. bu ñu amoon fayda boo ko indee noonu lañ la delloo ne la lii man ko àtte. Ah, ndax xaw ma fan la commencé. waaw dossier politique la. Uh-huh. dafa am yoo xam ne da xool rek xam ne lii purement politique la. Uh-huh. su boobaa du la ko àttal dama naan la dossier bi maîtriser ma parce que defuma politique xaw ma science politique. Uh-huh. ma tegal la ko ne bu dossier wu dëgg ñëw loo indi te ma xool ko mu rax politique dama koy classé sans suite bi nag lenn la mooy boo ko classé sans suite. ñu def la ni ñu def Ousmane Diagne. mooy mën nañ laa toxalee ca place booba yóbbu am ci sa liggéey. dañ koy dootoo amati yokkati ci sa liggéey. dootuñ la ay avantage dootoo ah, ko am dootoo amati avantage. ah gisoo Téliko ni ñu ko def. waaw waaw waaw kilifa la ci affaire mais gis nga ñu ko sànni ma nga Tambacounda non seulement mais avancement am yëpp dañ ko arrêté en plus boole ko benn journaliste di ko traîner loo justice muy dem ko ñëw uh-huh. ah yooyu yëpp ci jéem laa wane ne boo teguwul ci raay bi daal bi ñu bëgg ñun. Uh-huh. nii lañ lay def. kon coppite gi am ci magistrature bi daal yow dalul sa xel. non dalul xel loolu moom wax dëgg yàlla wolof moo naan uh, tombe moo waral ay gaaf mais fii ñu ko defee ak nii ñu ko defee. Uh-huh. ak uh, troisième mandat bi ñuy laam-laamee naan dina am ak du am. Uh-huh. yooyu yëpp boo seetee laxas nañ ko ba mu leer na lii bu ñëwoon day jàll ni lettre ci post est que ñi lettre ci post loolu nag su ëllëgee. danger bu mu jur ci réew mi magistrat yi na xam ne ñoo la. danger leen jural seen bàmmeel. buñ ko jooy kenn ñoom la te wallahi dana fa jur danger. Mhm. mais ñun moom li ñuy def nekkul justice. d' accord kon daal président bi li magistrat bi jàng. Mhm. warul nangu ab président bu koy manipuler. te day dem bàyyi ko fi def naa ñoom président Macky Sall day leen fi. wallahi day dem kii ñëw day ñëw fekkaat leen fi. wallahi ok surtout koo xam ne yaa ngi laam-laamee ne benn ato ko dese. dëgg bu mu tax nga yàq sa àllaaxira waxuma sax sa ah, àddina. mais yi neen pare guñ de. ah mais. gars yi neen pare guñ de xam nga troisième mandat moom. Hmm? ku Hmm. ku ci toog it du neex doo toogaay bi neex. waaw non président Macky Sall gis nga même bu forcé woon ba toog troisième mandat. Hmm. yàlla seede na ne. Hmm. du neex. waaw dëgg la. munul neex gouverne gouverne bu neex. du lew du dagan. moo tax du neex man maa la ko wax. même bu toogoon bii nii rek bii nii bi mu toog deux mille dix neuf deux mille vingt quatre boo ko laajoon danaan la neexul. parce que amul jotu sax liggéey liggéey li mu bëgg. ñu ngi ci ay coow rek. rawatina bu nekkee troisième mandat ana macha allah jërëjëf mm-hmm. imam euh, ci euh, point boobu noonu am na mm-hmm. solo kon jombul xam naa ne président Sall ak magistrat yi ñu ngi lay seetaan mm-hmm. ndax solution nag ma nga fépp léegi nag ñu dem kër Ousmane Sonko imam yéen da ngeen àndandoo woon yéen mu imam man ngeen lu ne yéen sëriñ daara yi waaw yéen a wuyu ji woon président Sall fële ca Sall ba nekk ca jam ñaajo jam ñaajo ci ñun waaw yéen a demaatoon te wuy ji Ousmane Sonko créé benn mouvement bu tudd doomu daara yi. Ah, dem Ousmane Sonko di fa def ay aaya ngeen di fi tas di yuuxu rek. waaw ah, ñenn ci ñun waaw. waaw léegi imam <laughs> waaw yéen ci yéen balaa dara sax yow demoon nga. mukk ci àddina dew ma waaw léegi bala ñoo ñëw ci sujet bi demoo. waaw li tax dew ma mooy man du ma politicien te gëw ma ne damaa war a politique taxul moo wax ne politique dafa xaraam. mais ñee ne politique de. ah dañuy politique nag. ah fee moom ña fa demoon dañuy politique. politique la de. Hmm. waaw politique pure et dure loolu moom amul benn werante ok tekkiwul ne dafa xaraam. Hmm. mais ku mu neex nga am ambition politique. Ah, man jàpp nga amul ambition politique yow. non man awma ambition politique mais politique bi ñor na ma. d'accord man damay topp politique vingt quatre heures sur vingt quatre. Hmm. li tax bugguma la cay lor di daanu sama kaw. heure bu ci nekk bëgg naa xam fan laay taxaw. mais nag bugguma bokk ci ñuy porte combat boobu. ni mu amee ñoo xam ne ay médecins lañ bëgg a doon am ñoo xam ne ay juge lañ bëgg doon am ñoo xam ne ay animateur lañ bëgg doon am ñoo xam ne ay journaliste am ñoo xam ne ay sëriñu daara lañ bëgg a doon mhm. bëgg a doon sëriñu daara nag du la tere nga xam lii xew ci dëkk bi waaw lii xew ci dëkk bi mhm. mooy politique man jàpp naa ne ñun bokk nañ ci ñi nga xam ne bokkuñ ci benn parti politique te mhm. bëgguñoo bokk ci benn parti politique dañoo bëgg a téye daara ji di xool su ëllëgee képp mën a toog muy Macky muy keneen boo amee loo yëkkati jëme ci daar yi ñu ñu jóg taxaw jàkkaarloo. mais nee nañu seen discours yéen waa ànd sàmm jikko yéen ñi hmm. seen discours daa ndoroog bu Ousmane Sonko. waaw loolu mën naa nekk man. jàpp naa da ngeen a bokki yéen ak Ousmane da ngeen a bokki bagage daal dafa ay mbir da ngeen ko nuróole. xam nga nag Sénégal moom léegi dafa dem ba. waaw baatu patriote sax kenn ñemeetu koo wax. waa boo ko waxee yow patriote nga ah bien sûr kan moo nekkul patriote c'est-à-dire mais tey président Macky Sall mu baal mi ñi ma wut a taxaw ni man patriote la. loolu mooy problème parce que bu ko waxee kon ñu ni Sonko la bokk. Ousmane Sonko fi la fekk patriote. <laughs> waaw Ousmane Sonko fi la fekk drapeau Sénégal. waaw Ousmane Sonko fi la fekk résistance. waaw mais léegi yooyu am ñoo xam ne ñemetuñ tuju boobu parce que boo ko waxee ñu ne la Pastef nga bokk. non baat yooyu fi la ko fekk. ah kon fi la ko Ousmane fekk. fi la ko fekk. Ahmed Khalifa Niass nee na mooy premier patriote parce que parti parce que ba dégg waa APR bu ñuy xas ñële yàgg naa am dañ naan patriote yi ñooy def lii te xamuñu ne patriote mooy bëgg sa réew patriote mooy ku bëgg réewam loolu rek la hmm. nekk patriote tekkiwul na Pastef nga bokk mais léegi boo ne woon patriote laa bokk hmm. ñemewu bon patriote laa ñu ne la xanaa Ousmane Sonko nga àndal hmm. jàpp naa ne esprit yi dañoo fekkante Sonko dafa ñëw fekk nit ñi di xalaat loolu mu ñëw incarné ko ah, d'accord jàpp naa ne nag lu baax la lu baax la mu ñëw gis ne patriotisme dañ ko war a jëmmal warul nekk rek benn euh, slogan bu ñuy wax mu porte combat bi li ëpp ci ndaw ñi gis seen bopp ci nii mu ko porter parce que dafa fekk ñu koy xalaat. Mhm. man wax naa benn mbokk ne ko ñun daanañ julli ji àjjuma ba ñëw toog kër ga di waxtaan ay 2013 2014 ba 2015. Mhm. yi yii nuy waxtaanee tey ci réew meeg jafe-jafe yeeg injustice bi am ak dañ ko daan waxtaanee ba yow boo deful attention danga nga naan ay opposants pur lañu. dëgg la. c'est-à-dire loolu dama bëgg wone wane usmaan Ousmane Sonko daf ñu fekk ñu di ko def. léegi bu àndee discours bu mu dajeeg moom ñu ne yéen moom ngeen def mais ànd sàmm jikko yi bi muy judd ñu bëri xamuñu Ousmane Sonko. dëgg la Ousmane Sonko ñëw fekk ñu nekk ci combat bi mu gis ci boppam. Mhm. ñu koy def mu ñëw toog. Mhm. ñu ne ñu moom ngeen ànd ak. waaw te Ousmane Sonko buy def meeting duñ ñu fa gis. waaw du ngeen def ñun ñuy def suñu dajee mu ñëw. ñu rafetlu ko nag lool. mais da koy jàppale ci communication. ndax ni eh? ngeen di communiquer arrangé wul état. moom moo jàppale boppam. Ah. moo leen fekk si seen yoon la sëñ Fall daan wax ku ñu yóbbaale da lay fekk ca yoon wa moom moo ñëw gis ne mbooloo mii fi nu jëm hmm. man awma ci problème mu ñëw dugg sympathisant ya fa nekk yépp ne kon kii mën naa porter suñu combat ñooñu am nañ liberté dem toppi ko mi ngi mel ni waa daara ji ñi fa dem bërki dem hmm. ñooñu libre nañu pour ñu dem d'accord foofu laa bëgg ñu dugg fa sax léegi hmm. noo gisee nag ndajeem daara jooju ak ban jàngat nga ci gis bi nga gisee affaire bi waaw xumbaay bi daal nañ doon tàccoo bu ma leen doon xelal dinaa ne leen buñ ko def. <laughs> ah ah eh, Serigne Daara wër ah, tàcc Serigne Daara yi tëb di tàcc moom mënoon naa ñàkk après ci ngay gis ñàkk sago gi nu am. <laughs> ci politicien bi ñu fekki loolu nag li muy jur mooy. Ah. faiblesse la leen nar a jural ëllëg. Ah. mooy après doo ko mën a wax sa soxla. gis nga mbëggeel gu ëpp. Mhm. day tax doo wax sa soxla te dafa mel ni ña fa dem. mbëggeel gu ëpp lañ fa demee ba fàtte nañ seen jafe-jafe yépp dafa mel ni daara nekkul ci benn jafe-jafe ñoom daal ba ñu gisee Ousmane Sonko ñëw fàtte nañ lépp ñu ngi tàccu di kaf di ree mmh. libre nañ nag pour ñu politique mmh. parce que loolu nag lu bees la ci réew mi mësul woon am benn mouvement wu sëriñ daara ci biir parti politique mmh. loolu moom c'est la première fois du Sénégal daan na am mais ay arabisants ñoo ko daan def les arabisants di PS arabisants PDS arabisants APR mënoon na nekk arabes yi sans Pastef du ma bett loolu yàgg naa am depuis Senghor nag laa wax de. imaam Moustapha Guèye mii moo leen daan jiite daa iman mais nag ay sëriñu daara moom sëriñu daara yu bokk ci parti politique am fu mouvement tuddee ko modab xaw moom mod waaw modab xaw ma ah, waaw doomu daara waaw mouvement doomu daara loolu mu ngi door a am ci politique parce que sëriñu daara yi ñu ëpp dañ daan def nii rek toog seen daara bu voté jotee ñu voté daa nañ far nag Mhm. sëriñu daara yi dañuy far mais engagé wu mhm. dem jënd carte parti politique mhm. daawul am ci sëriñu daara yi léegi nag ñu ko def man leen rek laa leen ciy ñaan ñu ngi leen ciy encouragé libre nañu waaye nañu am faydaay toogal fa daara nañu fexe ba décision yi ñuy jël ca parti ba nañuy defendre daara fuñ ca mën a toll ñoom loolu mooy seen yóbbu foofu la leen fa yóbbu mooy ñu fexe ba lii daara yi di jooy fii ñoom bis bu parti boobu ñëwee kenn dootu ko déggati ci réew mi ou bien bu ñu ko fiy dégg lu néew lay doon waaye bu dee dañ fa nar a dem nii di tàccu rek bu ëllëgee ñu ami poste uh-huh. jiite fi ay poste jiite fii toogaat di lekk uh-huh. loolu moom mooy ay politiciens yu sotti ngeen di doon noo fa gisee discours Ousmane Sonko bi nam aaya yam fa ak yooyu xam naa yàq na fa wala li mu wax noonu la waaw yàqul aaya na xanaa kay li ma jooyloo ci Sénégal rek mooy uh-huh. politiciens yi moom yàlla na leen yàlla yërëm maanaam usmaan Sonko day tudd aaya alxuraan mu nekk kéemaan waaw koo xam ne ab jullit nga di doomu jullit juddoo ci l'islam yaroo ci l'islam ba am 40 ans. mais boo waxee ay alxuraan sax mu yëm ñëpp. moo lay wan ne ñun jullit yi am. est-ce dañu jàpp ne ci géew bi mu nekk. Oh. nekk fa def ay yitte ba tollu foofu dafa jafe. waa looloo tax ma ne politiciens yi bari dégg naa ci euh, histoire ñu ni moom. dem na ba toll fi ma toll ba am ay ndomba tànk. waaw loolu moom doo ko def yitte pour loolu moom loolu moom effort personnel la. waaw te lu jara a la. Hmm. ndax politiciens yi dañoo fonkul alxuraan. moo tax ma ne politiciens yi ñoom yàlla na leen yàlla yërëm. bu demee bu bu tuddee ay alxuraan mu nekk kéemaan. Hmm. surtout loo xam ne jàngoo ko bi ngay daw da dem ba nekk mag nga yëg ne man en tant que jullit. Hmm. dama war a jàngi alxuraan. Hmm. nga dem di dem ci daara joo xam ne ay xale nga fay fekk ñu di la jàngal ñi di la reetaan nga am courage di ko jàng ba mën a wax ay yu leeree nii. wax dëgg yàlla alxuraan ju lay wax. bon loolu li muy teg tegtale mooy lancé ne défi politiciens yi mooy jàngi leen alxuraan yéen tamit. bu demee politicien bu waxee baatu alxuraan mu nekk kéemaan. moo lay wan ne politique bii lu ñu war a defaraat politique hmm. tekkiwul ne waroo jàng alxuraan hmm. da nga war a jàng alxuraan war a jub da ngaa war a mën a jaamu yàlla mhm. mais rafetlu nañu nag mhm. la fait que mu yàpp alquran ndax loolu dafay influencer nit ñi ñu dem jàngi alquran mhm. ndax gis naa ñoo xam ne biir na ma ni ñii moom mosuñu ubbi kaamilu alquran dëgg la ñu commencé di ko déglu naan ndeysaan di daanu naan aaye yi moom lu mu dañ koy def cest na bari lu muy jàngi alquran rek na dina influencer ñoo xam ne dana tax ñu dem jàngi alquran d'accord waaye daal maa ngi ñaax ñu daara yi ñoom it ñu taxawal fa daara te bañ a jàpp ne nag képp ku fa demul rek nekkoo ci yoon wa. d' accord mi ngi noonu Imaam jeexal nañu euh, tàkk tàkk tàkk tàkk ah, ñu ngi may sax soññi noonu. waaw waaw euh, Modou mu baal ma ko ci une minute rek da nga jàpp ni daara mi ngi ci loxo dafa dafa jaar euh, ci yoonu nekk ci loxol doomu daara yi voilà. waaw man nag lii ma gis muy xeeñ nii moom. Ah. incha allahu taala fii ak diir bu néew. Hmm. daara réew mi ci loxo doomu daara lay nekk mbaa ka koy yor. Hmm. ay doomu daara rek koy wër. Hmm. waaw fa la Sénégal tollu de. ay dictateur ngeen de moom. non du ñu ay dictateur sax. dañoo dañoo sonn rek xam nga nag eh, injustice bu ñu teg seen kaw mu yàgg. ñu di ko jooytu léegi mel ni na gaa yaa ngi yeewu ndànk-ndànk. Mm-hmm. yeewu googu nuy yeewu gëm ne nag politique bi mën nañ ko booleeg diine mais ci kaw nga amaale sa fayda yoo fa yóbbaale. ba boo demee nekkal fa daara. macha allah ah, loolu moom jar naa bàyyi xel. jërëjëf imam kon li ñu euh, cëroo woon ci ay wax defe naa def nañu. 40 euh, mhm. minutes yoo xam ni seq nañ ko ak yow. Euh, bii di ñëw nag ñu bàyyi xel ni dinañ. waaw décortiquer incha allah ku sàcc ay ba am fa doom doom ja doomu lan la. mooy def looy tàggook internet yi. li may tàggoo mooy jaajafal la. Mhm. jaajëfal mbokk internet yi jaajëfal groupe solution yëpp. ñaanal leen yàlla yàlla gën a yëkkati kër gi. macha allah te defal leen ci lu kawe seen jot ndax gis naa ne. Mhm. ëpp ci Sénégal yi ñu ngi yëg seen bopp ci kër gi. Diop jërëjëf jërëjëf imam Babacar Sylla imam la foofu la ca cité Sonatel euh, bu Malika ñu ngi koy gërëm bu baax a baax gërëm mboolem ñi koo xam ne yaa ngi toogoon di ñu suivre Modou Diouf moo nekkoon ci réalisation bi Ablaye Diallo moo nekkoon ci son bi gërëm ko bu baax moom Alaaji Sanjoogu Mbeng di kilifa kër gi le asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu